mais ministre de la justice encore une fois man damay bañ mu immiscé wu ci li nga xamee ne moom mooy des affaires de la justice. Mm. encore une fois le ministre de la justice naam moom la denk dénk parquet bi moom mooy gérer li nga xam ne moom mooy procureur yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les officiers euh, ñi nga xam ñoom ñooy gérer euh, kii. Euh, policier ok officier de police judiciaire moom ñooñu ñëpp ñu ngi ci li nga xam ne mooy tutelam mais encore dafa am faneen ba beneen partie boo xam ne moom jotewu fa hmm. loolu il faut que ñu koy souligner hmm. mooy ñi nga xam ne moom mooy les juges assis yi juges assis yi nga xam ne ñoom par exemple tey jii euh, moo tax boo demee boo demoon euh, li nga xam ne mooy tribunal toujours da nga leen di gis ñoom dañuy toog rek loolu tax ñu leen tuddee sax les juges assis yi hmm. dañuy toog rek duna jug le procureur peut se permettre mu jug tey euh di joxe li nga xamné ne moy mooy euh, réquisition mais juste assis dañu tok rek ñom bu ñu jugee mooy pause la. Hmm. wala ñu jug euh, daal di joxe seen sentence ak yu démé non légui yow nga ne jotewuma fii fi ñi mën mëna jotté fi alors légui man nan lay def nan li sama seen demande la dinañ ko jéem a def dinañ leen génné dinañ leen bay amul droit de émissé wu ci nanu génné ñi ak bu nu génne ñi. donc amul euh prérogative bi. le ministre de la justice amul prérogative bi amul prérogative bi nga mais en tant que ministre de la justice jibi comment comment comment comment ministre de la justice xam pour le bon fonctionnement dans la fa pour le bon fonctionnement de la justice amoo droit de émisser wu ci ay de la justice wala les décisions de la justice encore une fois man dama am problème T'as dit, dama koy wax tout le temps est-ce que mënuñu woon xool une réforme boo xam ne dañuy supprimer complètement li nga xam le ministre de la justice de permettre à l'État mu am une main ci li nga hmm. la la justice banane, bi beneen côté bi mooy suñu jugee foofu nga ñëw ci li nga xam ne mooy le président de la république moom sax ñu ñuy wax ni li nga xam ne moom mooy la conseil euh, supérieur de la magistrature moom moo koy jiite hmm. encore une fois man d'accord ma donte le président de la république Macky Sall moom defe naa benn yoon dong la assisté ci kii mais d'accord ma sax conseil boobu ñu koy bàyyi ci li nga xam ne mooy la président di diriger yooyu c'est-à-dire que il faut di dem ci ay réformes juste judiciaire yo y est-ce que président dina prérogative di gracier. président mom dina am prérogative. Ah, euh, mais mais c'est su gracier mais mais mais mais grâce présidentielle am ci ay logique yu muy mais su mais dossier Sénégal exemple exemple dossier vous xamni tam président vous ko non non. non non. ah moo ko la d' waru cee mën a teg coon cam de décis président lan lay wax après bu ñu ko waxee yéen génn diw nan génn diw lan lay wax ni moom euh, président moom exécutif bi la gérer. Hmm. gérer li nga xam ne mooy affaire judiciaire. président noonu ngay mel da ngay ci nga xam ne moom mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu justice amoo droit de teg sa coon ci dossier naan day taal dëkk beeg du taal dëkk beeg pour man. na nañu ay personnes yoo xam ne ils sont suffisamment aptes pour mën a diriger li nga xam ne moom mooy xool lan mooy taal dëkk ak lan moo dul taal dëkk ak nan lañ ci doxee juge yi nan leen bàyyi ak seen rôle bàyyi leen ak seen baat bàyyi leen ak seen kii ñu am une indépendance totale euh, bu ko defee indépendance boobu ñun ñi di wut ci li nga xam ne mooy la justice une justice libre ñu mën ko am ba tey ji euh, ku nu jàpp du yóbbu justice xelu sénégal yëpp dal li amone fi plus indi bokk na ci manque de foi bo xamna population bi manqué won nañ ko de foi. Hmm. ci li nga Sénégal. Hmm. alors donc de plus en plus ñu daal di japp ni exactement que ni euh, dafa waroon ay assises ak ay réformes yi nga pour.

si Cissé bëggoon xaatim wala comme sax wa euh, société civile bi bëggoon xaatim ben liste bi nga xamni tam worna am presque 100 personnes yi nga xamni tam da tànn neen leen parmi ces 1000 wala wala wala wala mu daal di mais parce que waxone dit euh, que ni euh, ci daal di d'accord ben yon que ni ils ont dit ñett. Euh, justement cette demande exactement est-ce que da nga japp ne do do do mën ko xawa dem li nga xam que moo di euh, dem li nga xam que moo prolongation ak li nga xam que moo président Macky Sall. non non non non japp ma yoy batay man dama nek ci wax sank la dama ne la militant de la paix là hmm. man dama lepp lo xam day ay jur jàmm dama ci entre mais euh, d'accord ma également ñu wara japp ci ñu japp plus d'une de ci 1000 personnes nga ne légui nañu génne sang yi. def benn liste dressé benn liste ñeneen ñi ci des. ndax mais mais mais quand même d'infraction en infraction. waaw d'accord mais c'est-à-dire y en a déjà ñoo xam ne itam. non non c'est des infractions légères na liste yu ñuy dressé liste yu ñuy dressé toujours mooy liste yi nga xam ne c'est des personnes yoo xam ne am nañu ay tur ci réew mi ñu ne léegi ñoom noonu fexe ñoo ñu génn léegi ñeneen ñi ci des nag. ñeneen ñi ci des ñi nga xam ne yàlla jox na leen tur ak yooyu baatu yépp ci biir réew mi donc ñu jàpp leen comme ay détenu policier gënuñu ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu. donc da nga jàpp ni Pastef ne pouvait euh, pas réagir plus que Pastef li mu def nii euh, mooy norme mooy yoon. effectivement mooy yoon lii mooy yoon. ne pouvait réagir autrement hmm. autrement nii la nii rek la mënoon nii rek la mënoon réagir maintenant léegi nag dama d'accord ci ñu libérer li nga xam ne moom mooy euh, détenu politique yëpp képp koo xam ne tudd na la détenu politique parce que recul démocratique la. mais Djibi est-ce que la mooy détenu politique

mais li am moy mais pour les détenus politiques amna mais pour les détenus politiques amna duguma ci yoy dama ne la. wa ah, waaw ah, non non attends non attends non attends non attends là où là où là où là où quand même tu exiges la libération de tous ces détenus. dañuy laaj ma xam pour les détenus politiques amna na cest à ñoo xam dañ leen japp pour des fins purement politique détenus yi nga xam dañ leen tuddee détenus politiques léegi fallu mayoo ma ñëw man dama ne duma du ma dugg ci détail bop li ma mëna wax moy gis nañ fi ñoo xam ne par exemple tay ji dañ doon wax Euh, par exemple man je prends l' exemple de euh, yenn ci ay ustaas yi ku ci mel ne ustaas euh, Assane Seck. Hmm. kooku xam nga taalul. der hmm. taalul de taaluwul. dafa wax ni lii ak lii ak lii ak lii jàpp naa ni lii ak lii. ak lii donc tu confirmes qu'il y a des détenus politiques. dugguma ci loolu. ah tu confirmes dugguma ci loolu dugguma ci loolu. gis nañ fi benn journaliste boobu heureusement ñu libéré ko mais un journaliste boo xam ne dafa relaté waat yenn yoo xam ne euh, comme euh, écriture journalistique bi boo ko liiree sax da ngay xam ne kii véritablement buñ ko jàppoon dañ koy toog. tu fais référence à qui hmm? tu fais référence à qui euh, journaliste bu Sénégal. waaw ah, waaw. nga ñëw nga ñëw. koo xam ne dafa def wax wax wax ba pare nga ñëw relaté waat li mu wax textuellement. te ka ko waxoon jàpp ñu ko ñu bàyyi ko jàpp la yow. ba noppi journaliste dafa am sax ay norme yoo xam ne fa lañ waroon jaar. mooy moom mi nga xam ne dafa euh, waroon organe de hmm. de presse bi dafa am ñu koy diriger ak ñu demee ne dafa am lépp loo xam dafa am yoon. léegi moom mën nañu ko jàpp en tant que complice jéem a attaqué l' organe de presse wala nga xool l'éditorialiste nga jéem ko jàpp wala demee mais xooluñu loolu. c'est-à-dire que tey jii yooyu bu amee ci mim réew da ngay xaw a tiit benn côté. foofu laay waxee ni ñooñ ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ni jàpp nañ ni hmm. na leer jàpp nañ ñi ay détenu politique leen war nañ leen mën a bàyyi leneen rek li ci def mooy léegi nan bàyyi yoon def li nga xam ne moom mooy ay liggéeyam ak hmm. demee man dama ci d'accord beneen bi également fa laa bëggoon nekk fa laa bëgg rebondir mooy prison yi dafa fees prison yi dafa dafa hmm. fees te indi woon nañ fi ay yenn yoo xam ne jàppoon naa ne benn alternative la sax pour jéem a dindi li nga xam ne moom mooy euh, prison yi nga xam ne ni mu ni ni prison yi mel ni mu feese hmm. par exemple euh, bracelet électronique yi ñu doon wax hmm. tey jii gisatoo ko wala boog du bareetul ñu mu kii à quoi bon ñu jël ko def ci ay milliards wala ay millions buñ ko indé ba paré euh, prison yi di gën di fess ñu japp di dugal. mais bracelet amna am na ñoo xam ne nanguwuñu ko sol euh, tok prison moo ñu gënal euh, parce que si japp né il contrôle de tout leur mouvement bi nga xamni tam itam ñu koy def toute la journée. Fall d'accord batay mais am na ci ñen ñoo xam ne bëgg nañ ko sol sax. su ma leen ko gënal. am na ci ñen ñoo xam ne bëgg nañ ko sol. Hmm jéem a désenclaver euh, li nga xam ne moom mooy prison yi parce que prison yi dafa metti fàllu si ni ñuy dunde nii ñoom dafa metti instant bii ak yeneen instant yi sax mais rawatina ci période tàngoor beeg yu demee nii donc il faut que ñu leen di dimbali prison du du du enfer du safara. ok c'est clair voilà.

xam ne ko place de l'obélisque pour exiger li nga xam ne la libération des détenus politiques mais plus particulièrement euh, ki nga xam que Mori Ousmane Sonko parce que ñoom li ñuy daal di di élection euh, transparente et inclusive waaye itam élection yoo xam ne itam kenn xañ kenn bokk itam ñëpp daal di war a bokk manifestant ji nag dégg nañ ki nga xamné ne que moo di Thiat waaye l'ensemble ñi nga xam itam ñoo daal di fare fa nga xam itam mooy zaanu F24 ak li nga xamné ne que moo mouvement yana mar marre daal di waroon war a mën marqué li nga xamné ne que moo di retouram sur la scène politique don exiger li nga xam nekk la libération de tous ces détenus politiques alors nag si euh, euh, euh, cappaandaw la li nga xam nekk moo di le préfet daal di interdiraat exactement raison yi nga xam ni tam joxe na ko bokk na si trouble à l'ordre public waaye itam bokk na si li nga xam nekk moo di entrave à la libre circulation des personnes et des biens loola daal di exactement comme li nga xam nekk moo ay

encore une fois euh, mouvement bobu dina F24 euh, c'est une énième fois qu'on assiste justement ça su nekk ñuy daal di reculer euh, ay alors tay ñu gisoon le retour de Yana Mar, ñom chat ñom ñoom et tant d'autres sur la scène comme en 2011 ñom itam boobu peut-être ñu daal di nopi won ken xamu won exactement lan moo euh, c'est exigence li nga xam ne Modi di askan wi ñu daal di exactement sur le terrain mais tout d'abord euh, par rapport à ces euh, manifestations yi nga xam ne ñu koy daal di interdire ñoom jàpp ne ni manifestation pacifique leen daal di woote taxaw kaas si li nga xam ne mooy métti du askan wi alors tey jii c'est un droit tey le plus absolu tey suñ que si ñoom daal leen koy xañ exactement lu numéro mel lan lay daal di expliquer xam toujours Sénégal war na daal di war a donne à préférence sur l'état de droit ou kon de plus en plus aujourd'hui li nga xamné que modi légui manifestation amal ko fi exception la interdire ko mooy doon logique bi au contraire. voilà fi nga né foofu lay euh, rek ñëwee léegi amal fi euh, li nga xamné ne moom manifestation moom mooy devenir li nga xamné ne exception mais ñu interdire ko moom léegi defe naa boor ci noppi ñëpp ba ci démb rek. Euh, am a invité bo xamni bu muy ñëw fi dama ko hmm. le préfet donc amna euh, culture wala amna habitude légui day bay dernière euh, li nga xamni mooy aussi Thiat mu souligner que ni war deux jours avant. ñu saisir. les recours wala kon leen yoon à travers Cour suprême. demb l'invité mu ñu ci doon waxtaan. ko li leen koy bañal. Hmm. légui nak bu donc y a un problème également nous dafa am loo xam constitution moo garantir la manifestation surtout manifestation